Champion noo ñëwee tey. waaw sant yàlla rek bu ma ñëwee muy ànd ak samay mbag samay papa mooy yàlla may ma ndam. adversaire bi nee na mayu la laaju la dara dara boo ko sax day ñëw jël si. waaw yàlla baax na yàlla baax na ba si ñu xamee la bëre xeex bu sax. waaw sëñ Fallou rek yàlla baax na ba si kanam. incha champion bi noo ñëwee tey. waaw ànd ak samay rek liggéey lu ma war a liggéey yëpp ñëw quoi. parce que adversaire bi nee na moom laaju la dara nee na bu la jàppee daan la du ko neex daf la bëgg a daf la lu métti soog la daan. waa si kanam rawul bët. Eh, eh, waaw waaw. dund fekee rek. soirée Bébé Diène Soumbédioune Fourrière Grand Mbolo arbitre bi soufflé na eh, eh eh door na Fourrière door na Bébé Diène fay na ña ngay xeex du yàgg ña ngay xeex xeex attention kawo kawo fàqat mu bañ Bébé Diène fàqal na ko Fourrière bañ ña nga jàppante Bébé Diène ngay door Bébé Diène ngay door Bébé Diène jàpp na Fourrière jàppul loolu tolloo doole tolloo taay tolloo poids nag ay door ba jël jàpp na ko luy xaw ñaari xale yaa ngi ca dee Bébé Diène Fourrière ña nga ñaar Bébé Diène jàpp na Fourrière ngay door ah Bébé Diène bàyyi na jàpp bi Fourrière jàpp na Bébé Diène jàpp na luy xaw taf ca xabal luy xaw door ci faar Bébé Diène door na ci faar yi Bébé Diène Fourrière ña nga ca ñoom ñaar Bébé Diène Fourrière door tànk mu bañ Fourrière door na tànk Bébé Diène bañ flash yaa ngay tàkk éé eh, eh, supporter Bébé Diène yaa ngay de ñoom pression jàpp leen de déedéet Fourrière supporter Fourrière nee nañ tekk ah ñoom tamit ña nga ca de baat ak la wallaay ndeysaan ñaari mbër yaa nga ca dee arbitre suuf la nee ña ngay laa ilaaha door mu dee door mu nelaw door mu daanu daara eh jël na ko ba mu jël jël na fourrière mu eh, eh. lu yóbbu déedéet fàqat mu rëpp jóg plaqué mu bañ faa eh, rotation eh ñaari xale yi léegi léegi fetal nañ jaar ree fetal nañ ree ay Assane Ndiaye la ñoo dil ay Baol production la ñoo dil Bébé Diène Fourrière Bébé Diène ca Soumbédioune waaw waaw moom Diène Kairé moo ko ëmbandi hey Fourrière ca Grand Yoff mbooloo moom mobile 2 moo ëmbandi ñaari xale nga jàppante ñaari mbëri amuñu différence de bi lenn dong la mooy xees ak ñuul Bébé Diène daa xees pecc ndarang la Fourrière ñuul kuk est-ce du séeréer sama kali wallaay ndeysaan da nga jàppante eh mbër yi daf nañ tëpp tëpp de fi ñu jóge léegi daa saf sap saf sap Baye Assalam borom Dukumaan borom Bagaañ maa ngi lay nuyu di la siyaar eh di la wax bi métti tegi siraan laa ñaan sama doomu yaay maa ngi lay siyaar ba mu doon door na ba he Fournière ngay fayu ba mu doon fàq na ko mu bañ rotation mu bañ rotation Fournière ngay na ba mu doon door na Fournière fayu he ma ngay xeex ña ngay xeex kawo kawo door mu daan wala luy xaw kawo ña ngay xeex ña ngay xeex eh na ko war na ko eh la ilaha illallah ba mu doon Fournière ña ngay xeex attention Ardo Ardo ah président président ba dañ na ba ma jël door na ko wax da ngay xeex attention kaw door bu daanu hee door fayu waaw waaw door fayu de hee laa ilaaha illallah premier suuful na laa ilaaha illallah mu hee oh. door door door ñaari mbëri xeex nañ de bettuma walaay bettuma cent pour cent à la ñaari mbëri di daw dóor bettuma de eh dóor dóor Bébé Diène dóor na Fourrière na teg Fourrière endurance sama des de entraînement bu wóor mooy feeñ fii entraînement bu wóor mooy feeñ fii waaw ah, daa mel ni Fourrière dafa sonn de wala de ni jéem a ndax adversaire am lan ah, ñaari mbër ñamante nañ de bëri xeex nañ Bébé Diène na Fourrière door na Bébé Diène Fourrière jàppante waat nañ caxabal caxabal mu bañ caxabal mu bañ. hee Bébé Diène taxawal na ko léegi de Fourrière bañ ña nga jàppante ñoom ñaar Bébé Diène door na hee bu bañ Bébé Diène na ko Fourrière bañ Fourrière kal na ko Bébé bañ hee ñaar xale yaa ngay bëre de ñaari xale yaa ngay bëre de Fourrière Bébé Diène ma puus ma ngay puus eh fàq na ko fàq na ko daan na ko daan na ko eh Bébé Diène daan na ko eh booy gerte gi booy gerte ndeysaan da ko def comme doomam oh Bébé Diène tànn na ko Bébé Diène tànn na Fourrière la ilaha illallah Fourrière yëgul li xew Fourrière yëgul li xew oxo oxo fii la xewoon yéen a gis supporter yi noonu sama ginnaaw waa Soumbédioune moom Bébé Diène yéen a gis noonu image yi ñu xeex lu métti bëri lu métti moog Fourrière waaye Fourrière làmb nii la Bébé Diène daan na la du gàcce Bébé Diène daan la jël bu rëy Bébé Diène champion la xale la daanaan la dafa nekk si yoon fii la xewoon Assane Ndiaye Baol